voilà ay comme comme ni daa fekk man ma dama jàpp ba pare pare waaje julli voilà daa fekk man ma jàpp bay waaje julli ji mooy tiswaar bi su ma bay teg butéel bi la oto bi di ñëw mais oto bi ni muy ñëwee nga xam ne kii amul frein mooy tata la bis tata bis tata la ñu ña nga jaay de bis tata comme comme bis bi nii waaye man jaaw ma jàpp ma numéro bi parce que ni mu doon dawee ñun xoolatuñu woon sax ban mu numéro bii la wala bee tellement que moom day daw ak Aliou bi muy ñëw li tax mu doon muytu parce que il paraît amul frein parce que ni mu doon dawee boo xoolee rek da xam ne kii di ñëw amul frein mooy am na benn moto bu ko njëkk a bu njëkk a muytu moto bi tamit muytu ko mu jàll mais bu mu ñëwaat moto bi nekk ci kanam gisu ko moto boobu daa yeboon kenn moom la jël ñoom ñaar yëpp. mooy ñaar ñi waaw mu mu mbëkk leen bu ñu daanoo moom moom si boppam moto bi beneen côté bi la def ñi demoon ci kaw tali bi ñoom ñaar ñu nekkoon ci moto bi mu jaar seen kaw seen kaw la jaar diri leen kenn ki mu sànni ko fii keneen ki mu mu moo lonkoon ci oto bi moom ngeen gis mu ñu sàng ko fee kooku fii la ko laalee fii di sa di xoolal distance bi. waaw yóbbu foofu mais ci biir diri boobu laal na fi euh, borom taxi te taxi bi dafa dafa mokk nem heureusement taxi kenn kenn ki ko doon chauffeur bi rek la moo fa nekkoon waaw il paraît que kooku sax du chauffeur mécanicien la woon xam naa da doon defar oto bi rek parce que loo ñu wax mécanicien la la continue ñëw ba fii yéenu fi benn moto trois roues sànni ko ci ci ci car rapide moto bi dafa amoon ni non ay bagage la yor moto trois roues ay bagage la yor xanaa chauffeur bi ko doon daw chauffeur bi la tànc ak ak car bi ba boobu bi ak ñeneen client benn client bu doon dugg ci biir oto mu tàncaale ko ak ñi am na keneen tamit ku mu laal cela veut dire que mu ngi daw mu ngi daw léegi taxawul ba li mu def yooyu yëpp taxawul ba fo xoolal li mu mbokk yooyu yëpp ba fee la kon kooku da ngay dalay dalay leer ne kii amul frein non seulement amul frein dawul daw bu bu normal parce que fii nan la mun a am am embouteillage fii toujours day am embouteillage oto mun a dawee noonu ba mënul contrôler boppam moo tax chauffeur yi il faut ñu xoolal leen tata yi li ñu def ci dëkk bi fan yi na war lool état war na ci jël ay responsable parce que lii tamit dafa ñaaw bakkan du lu ñuy foowe ndax bakkan dafa foor mais dañuy léegi dañuy fooye bakkan yi comme ku yor ay mala oh, sapeur daa mel ni sax am na ki njëkk a ñëw daa mel da cee tombé waaw sapeur moom wax dëgg fa la ay jàmbaar la loolu moom ku ko waxul ku ko wax ay jambar la ñu ngi def seen tem kàttan mais dëkk bi ni mu xatee parfois da nga leen di yàkkamte yoon ci ñoom parce que dëkk bi daa xat yow mii nekk ci tali bi da leen bugg a may sax doo am espace bu may la mais wax dëgg fa yàlla def na seen kéem kattan bi ñu gaañu woon ñu sauvé leen à temps comprendre voilà lii daal li ñuy lancé mooy que ne ñi nga xamante ne ñooy sauveur yi ñu xool est ce que ñoom seen papier mën nañ est ce que mën nañ dawal dañu war a xool lu bëri ci ñoom régulariser lépp oto yi ñu xool leen bu baax a baax ñu war daw ñu daw war a daw ñu yóbbu leen fourrière ñu xool ñu leen def parce que tamit la ñuy yëpp yëpp yëpp ñu loolu yëpp dañ ci war a xool bu baax a baax a baax voilà c'est à préciser que moto la bu mbëkk te moto bi da ko ab da daa nekkoon ci kanamam bi daw moto bi day daw mu fekk ko foofu mbëkk ko moto bi taxawul de day daw comme normal mu fekk ko foofu mbëkk ci ginnaaw ñu daanu mu daa seen kaw c'est clair voilà non bi nag xam nga ne defuma ci foofu ba ba xam mais li lii fi mu démarré bi daal lii laa ci xam parce que fekke naa ko la ca des nag wax dëgg wala moom la ñu wax daal ak bi bi bi ma taxawee na ma gis ma gis kaa bi man ma daw wàcce si moto bi ma daw nii bi ma wàccee mu ñëw yóbbaale sama moto ñëw ñëw fee mbokku bu dee ñaari personne après mu demaat ko defee waaw mais man na bi ma ko gisee na dafa après non man kese sama moto man kese man kese man kese maa fa nekkoon. oto bi mu rombee. bi mu rombee. dafa kii nii dafa yaboon ay nit. ku kenn ki dafa mel ni dafa am ku mu supporté woon waaw ci moto mooy ñaari waaw kooku la oto bi la ma si yóbbaale ba fale ba eh, amul frein nawet bi amul frein frein bi man bi ma ko seen rek bu muy ñëw ak vitesse bi amul frein ci laa daw non tata la tata la tata la non xaw ma numéro waaw waaw mun naa mun naa ne man waaw kon moto bi waaw Öyle figürlerine bak. mu ngi tax de mu ngi tax quoi ñoo na bi ma mu moto bi comme amul assurance moo tax ma wàccee ko nii pour gendarmerie bi buntu faat bi oto def ay bêtises ba ñaari nit buñ koy dee ñu suuli leen comme ça loolu yaakaar naa ne wax dëgg yàlla li mu mënu cee continuer nit ñi nañ ànd ak dal nit ñi nañ ànd yar Sénégal yi nañu discipliner seen bopp buñ ko deful suñu kaw lay këpp te kenn duñu fekk si bi ci des mooy il faut que l'autorité jël ay responsabilités moi j'appelle solennellement le ministre de l'intérieur ak son collègue des infrastructures pour que li xew ci Dakar fii tey muy question wu Jakarta yi les deux roues ñu xool nu ñu koy lu ñu nekk ci réew moo xam ne capital boo xam ne mais fu tourné moto yi vingt vingt vingt booy dawal oto sa kawar sa kawar bopp sa digg sa sa fit bi dañ lay romb góor di lay romb droite boo la jaaduwul ma wax ne il faut aussi avoir le courage de le pointer du doigt am nañu dugg ci activité moto yooyu tey ñoo xamante ni mais dëkkuñu ci réew mi bitim réew lañu jógee réew lu ñu wër ñëw di ko di ko def am na ñoo xam ne aussi suñu ay ci réew mi mais loolu yëpp kon lu ñu war a seetaan la ñu nekk ak ay moto yoo xam ne duñu sol casque dañ leen war a jàpp ñoom ñëpp identifier leen déjà mu am immatriculation ku ci def lu dul noonu ñu xam ne yow la duñu sol casque des fois da ngay romb gis ñuy def ay sport ay opération euh, spontanée yooyu alkaati yi di leen arrêté ñuy waxtaan ak ñoom ensuite ñu bàyyi leen di def lépp ñëpp xam nañ loolu ni ñu ko tëggee ak li a xam ne moo xew ci réew xam nañ mais il lu koy def prendre ses responsabilités parce que nag bakkanu doomu aadama du ay caaxaan te lii yaakaar naa ne caaxaan kese la mooy ay nit ñuy dee de manière banale comme ay yamb comme ay ay ay ay weñ mais loolu c'est c'est incroyable Sénégal rek la am. del déglu del xool Feeling Dakar information yu leer Feeling yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar nos plateforme d'information